auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare noo ngi ci ñaar ñeent fukkeelu jataay ak juróom-ñeent ci téereb xalim ak leer noo ngi ci bunt bi jëm ci wàllu sant toll ci xasida ak minanul baaqil qadim bayit yi nga xam ne ci leen toll it day bayit yoo xam ne sëriñ bi da ciy wax teraanga ji ko sunu borom defal ak gane goo xam ne da koy faral di gane sunu borom bokk na ci bayit yooy wax na ne doon gi ma doon ganoog yàlla mi aji tedd ci bégal na ma mbégte mu àndul ak nëx-nëx ci àdduna ak alaaxira yàlla moom nag mooy aj rafet di ab soppe di borom mbindéef yi te ci sama jëmm lay terale maam ya farraxani kaw nii bila akdaari fi haasihi daari wa tilka daari dayfal karimi wal jamili wal wadud rabbil wara wa bi yukarrimu judud loolu nga xam ne wax na ko ci gane gi muy gane boromam seetlu nañu ne seetlu nañu ne lu ci bare bari bu tuddee ngan gi day jëfandikoo turu yàlla wi di alkarim muy tekk aji tedd ci mu mel ni moom melo yi nga xam ne moom la sunu borom di jëflanteeg moom saa su ne dafay aju ca fam toll bu ko dee teral di ko joxe teraanga day mel ni melokaanu alkarim la sunu borom di melowoo muy aji tedd ji moo tax wax na ci beneen barab budul xasida gi ne gane naa yàlla mu tëdd mi nga xam ne ci kun la may ba faw daal di cay teg naa yàlla mu tedd mi nga xam ne teral na ma ci jéeri ji ak ci géej gi te jox na ma alquran diftul karima alladi yuqri bikun abadan wa an uaawana fi tuubaaya qad aana diftul karima di fi lbarri karramani walbahri isaaqali bilfaydi quraana mu wax ci beneen barab ne sunu borom man sab jaam la di liggéeykatub yonent bi salallaahu alayhi wa mujj naa doon nag sa gan yow mi borom mbindeef yi yaa ngi may berndeel ci goreel akuk booyal inni la abdun xadimun sirt dayfaka yaa rabbi wa bil itqi wal itlaaqi tuqrini kon day mel ni sëriñ bi day tudd lu bari teraanga yi ko sunu boroom defal bi mu ko ganajee ci jox ko alxuraan ak mboolem yiw yi ba tey dina ñu gis ci bayit yi muy wax goreel gi ko yàlla goreel te ko mu mel ne jaam bu jaamu boromam ba toll foo xam ne dara mënatu koo tënk ci déggam ak boromam ci zaahir kibaatin baatin moo moom bakkanam ak bànneexam lépp ci lu neex yàlla rek la mën a jëm bànneexam day jëm ci lu neex yàlla bakkanam it day wamatu jëm ci lu neex yàlla waaye dara tënkatu ko ci diggam ak boromam kon noo ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa